asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie dañu topp suñu formation Python jàngoo en wolof te dañoo ñëwaat si vidéo bu am solo comme tey gis ngeen ni euh, suñu cours bi passé jàngoon nañ naka la ñuy inscrire benn utilisateur léegi ñun créer nañ utilisateur bees mais utilisateur bi liste contact yi def vide voilà léegi naka lañu ñu mën a def ba ba mu am mën ba mu mën a amay contact voilà. am na benn concept mu am solo en programmation wala en développement d'application web ñu naan que CRUD wala nga wax CRUD voilà bon xam nga expliqué ko bu leer pour ngeen comprendre euh simplement bu si bu ñu CRUD bu njëkk bi par exemple C bi mom may create manam créer voilà créer mën na nekk par contact voilà lol mën nañ ko tuddé ben bi stop moi R bi read liñ koy tuddé manam lecture wala lire lecture nga lire le contact comme niñ ñu doon def afficher liste contact affiché afficher quoi mën nañ ko tuddee afficher ben bi stop moi u u ñu naan ko update madame euh, modifier wala mise à jour voilà update mën nañ ko modifier wala mise à jour léegi man mos def moy mooy def moy, delete delete supprimer voilà suppression quoi mu nekk concept bu am am solo da ngeen koy gis lu euh, mais simple bi lay lire mise à jour supprimer ok léegi tey lan bëgg comme bu njëkk bi def nañ ko bi stop euh, bëgg créer légui damay copier li pour def mu obligatoires obligatoire pour nit ki bu connecté wul du mën créer contact voilà l'autre tamit c'est c'est tellement important sinon ku nek mën na jógee fu neex créer contact voilà donc damay def fonction bi def new contact légui nouveau contact bi lan lan laa jox euh, request ok c'est bon euh, la mon stop les dañuy condition parce que à chaque fois oui ñuy def formulaire rek dañuy condition euh, ba xam méthode bi nu mu sax méthode post if request that method égal to post voilà léegi dañuy xool méthode ndax post la post bu euh, nouveau contact nouveau contact dañuy non bi prénom et numéro téléphone email voilà léegi euh, auteur lay njëkk commencé auteur égal auteur bi dañ koy récupérer ci request bi comme sànq nu ngeen gisee woon request point user ci requête http bi am na may utilisateur yu récupérer nga foofu bu nekkee non si formulaire bi dañ koy récupérer voilà après dañuy créer soit ñu créer formulaire si front bi kese bañ ko créer si euh, partie forme fii nii

contact.html. ok Les bu ma defee fonction pare damay dem si partie urls c'est mon écrit. maa un défi fii voilà ok bon li dafa goudou a def nii tout. pour nous voilà pour mon mën à la ligne wàññeeku tout ok léegi euh, bon va copier bi fii nii mën naa ko tuddee par exemple contact niw léegi ma jox ko fii niw contact fii dem ma jox ko walla new contact pour mu gën a explicite ok léegi par exemple page contact bu ma ñëwee ma def new voilà daf naa template does not exist léegi ñu ñëw créer template bi léegi euh, template yi fan la nekk yaa d'un dans contact ñu def fi daal di créer template ba léegi d'abord buñ kiiwee pare am na ay par exemple importer def pare mooy extend quoi comme fii mooy njëkk yi xam f extend fii n block n block voilà

that card ok léegi def naa card pare ñu def forme forme moo nekk ni dana laaj action bi action bi mën nga ko bàyyam vide léegi dañuy def fii méthode bi méthode non voilà léegi méthode bi ñu def nii méthode égal euh, post voilà léegi méthode post lay nekk ok léegi gis ngeen créer nañ form def méthode égal post léegi euh, wax naa leen que sur Django à chaque fois nga def formulaire da ngay def CSRF token voilà moo nekk ni CSRF token da ko fi def chaque jour boo defee benn forme sinon boo envoyé du dem ok léegi bis topp mooy ay kii lañ soxla fii ay champs xaaral woon leen ana euh, page bi sax ok léegi indil nañu lii vide léegi def champs yooyu dañuy dem bootstrap moo leen naka la explorer documentation bi voilà nga une euh, partie documentation nga component forme voilà mu forme soxla email adresse bi lañ soxla ñu copier bi texte bi soxla wuñ ko ok bi rek lañ soxla input bi la soxla léegi mën nañ ko dugal fii ok ok les fini nii label bi pour email la mais premier label bi moom mooy nekk par exemple non contact bi non voilà non au lieu de type mail mais type texte parce que non mail les texte lay Euh, texte bi nii soxla wuñ ko fii xaaral ma ko mooy texte bi suuf ok léegi dañuy defar benn ba mu baax ñu doog a jël yeneen yi leen conseil aussi ngeen fermer kenn ko nii quoi ok léegi ñu xool ndax ñëw na walla ñëwul pour ñu continuer voilà les amener nañ bu njëkk bi mooy léegi dañ koy copier mille plusieurs fois parce que ñun dañoo soxla nom prénom téléphone email léegi mon copier wat ko prénom téléphone email ok prénom au lieu de nom fi dañ nga koy changer par hmm, prénom fi tamit changer par prénom ban mos des euh, bii nga def ko téléphone ok pour téléphone léegi boo defee téléphone bu mujj bi lan la email nga def fii nii email léegi fii tamit da def euh, email ok léegi au lieu de type texte fii email nga koy jox ok léegi damay remplace ID par exemple fu ñu def ID rek dama koy remplace par par par name parce que soxlawuñ ID bi mais name bi lañ soxla léegi je vais remplacer tous les ID léegi da ngay def contrôle F2 mu sonné ID yëpp ok léegi nga changé ko par name ok. legi ñu xol ndax ñëw wala ñewul ok legi am champ yi mu dess legi bouton bi legi ma def fi bouton point btn point btn primary c'est bon ok legi ñu def euh, enregistré ok legi fi dem dañ ko jox type submit ok léegi xool lu indi ok léegi def nañ bouton bi gis nga fii nii dafa xaw a am na benn espace buñ bëgg bàyyi si kaw léegi fii nii mën nañ ko fi def margin top 2 par exemple ok ok voilà léegi créé nañ suñu formulaire bis top moom mooy récupérer information yi voilà léegi euh, beneen affaire mooy ban moment la war a créer fan lañ ko war a créer voilà fii nii ci kaw léegi dañ koy def foofu euh, mooy list contact yi ok léegi ci ci list contact yi ci kaw la ñuy créer benn benn paragraphe wala benn div rek boo xamante ni fii la ñuy def suñu bouton bi bi nga xamante ni bu si utilisateur bi kii cliquer moo koy créer contact bi léegi damay def benn div jox margin top 2

bouton mu ngi nii léegi boo cliquer takk da indi si page bi nii voilà léegi comprendre ngeen nu ñuy créer formulaire bi comprendre ngeen view bi si vidéo bi di ñëw dinaa leen wax naka ngay récupérer information yi merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel.